épidémie mu ngi ñëw. yëg hmm. ngeen ko. Hmm. am na benn épidémie bu ñëw. waaw yaa ngi koy yëg. waaw je fais un appel au ministère que tous les médecins du Sénégal doivent être impliqués pour la prendre en charge d'une épidémie qui a qui a démarré mais ñu ngi commencé envoyer lettres dans les dans dans les hôpitaux ah, moi c'est <laughs> quelqu'un comme toi qui m'a donné une copie de cette maladie hémorragique qui en train de dont le premier cas sort de sort de Dalal le deuxième cas le deuxième cas. moo war a nekk la posture de. La de l'État et du corps médical. c'est de d'informer d'abord tout le corps médical de donner tous les moyens de lutter contre euh, cette maladie-là à tout le monde à tous les médecins du Sénégal et à les informer correctement sur euh, l'évolution de cette maladie qui c'est qu'elle atteint ah saa ca la tuuti c'est surtout ñi nekk ci yàpp ji affaire viande c'est un boucher d'ailleurs qui est qui est mort c'est en manipulant la viande. qu'on attrape un virus qui est qui est transmis par les les tic tic moom tic nu mu tudd mooy yooyu di dugg si sa yàpp dafa mel lu fel la te mu gën a rëy fel di dugg. matt wala genre matt la te mu nekk ci doo xar yi deru nag yi wala xar yi. les puces là. non c'est plus qu'une puce ça s'appelle des tiques moo gën a gros moom kii bi ginnaaw gi dafa yaatu nii. te leen boo koy dindi nag c'est très difficile parce que boo ko xëccee bopp bi day rester ci biir tic tic tic lañ koy waaw ce sont les tics mais qu'est-ce qu'il faut faire ah, population yi lan la ñu war a def non population yi lan la ñu war a def en tout cas tous les gens qui travaillent dans la viande moom actuellement doivent se méfier nee nañu te si duñu rey nag tant que observé wuñ ko pendant au moins 48 heures day xam ndax euh, nag boobu amoo ko et ceux qui élèvent des des des animaux est-ce que yëg nga ne euh, jën amatul ci dëkk bi. léegi nit ñi yàpp rek la ñuy lekk. non non ñëpp ngi lekk jën bàyyi yàpp. depuis l'information sortie hmm. kenn lekkatul yàpp de bàyyi nañu yàpp bi parce que la viande peut être contaminée <laughs> ah très bien l'information arrive mm -hmm. parce que la quand tu les manipules avec tes mains nues tu peux attraper le virus tu peux attraper le virus quand tu manipules la mais est que virus bi boucher mais est que virus bi dafa am danger pour le Sénégalais qui ah, achète la la, ah, bien sûr il faut nga togg mun na dugg ci sa ci doo ko roof xam-xam daan ci ay kii <laughs> dugal sa loxo si yàpp bi. mais aussi on appelle on appelle vraiment de façon solennelle que le ministère de la santé que se lève rapidement donne la bonne information déjà à vous la journaliste <laughs> très calé quand même dans dans ce pays là euh, que nga commencé def ay émission avec des confrères pour ñu jóg ci. produit yi ñëw yu ñu nar a may. mais est-ce que l'affaire est prise euh, très au sérieux euh, lan moo war a nekk taxawaayu état bi. pour une situation Sénégal yàlla yàlla yàlla dogal nu ñu wax. nu mhm. ñu wax yàlla dogal. yàlla dogal waaw ci loolu lañ nekk. yéen le personnel de yéen yi nga xam ne les professionnels de santé euh, amu leen woowuñu leen benn réunion jéemu leen contacter le ministère. jërëjëf <laughs> merci de dire ça très fort dans votre télévision madame demain invité benn benn vétérinaire. ah invité leen un épidémiologiste mu wax waa Sénégal feebar boobu bi pare law ci Sénégal nañ ci jóg ba ñoom vraiment. <laughs>